maam alaaji Saalum maam alaaji Maas Ba ñoo ko fondement ndaw fondement bu rëy Cheikh alaaji Baaboy baay bi ci biir ndukku man biram em na ma daarul muhibbiina dugul maa ko wëy man min ka moo leen njëkkaa wëy ci la la la رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بوكي بوكي تي الله مولا سين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي دي نيو دي لين زياره دي لين دوكل تي حال بي ني تولو موي لان بلاص بيغا خامني دغ دغ تسور ني ماكاي واخ واخي رك place la boo xam ne nii mi ngi bokk ci xurumu sunu borom yi subhaanahu wa taala place bu yàlla sellal waaye palaas bu yàlla barkeel yal nañu yàlla taas ci barke boobu yaa rabbi place su Mawlana Cheikh al Islam Baye radiyallahu anhu dëgg-dëgg place fii ci maat alhaji Muaz ba ngodi ba waaw ci daara alas baabu ba la génnee waaye mi ngi ci maat alhaji Muaz ba di continuer njàngam ñu koy ñaanal yàlla moom itamit yàlla gën koo dëgëral incha allah kon dañ koy jox mu ubbi jataay bi suñu paree jox al imam Aboubacar Ba noonu lañ koy defee ba incha bismillah الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخل عليه توكلت loolu rek kon dañuy jox kàddu gi imaamul xadarati imaam Aboubacar Ba ñu ngi koy jox kàddu gi ayadahu llahu nas ñëpp ñu bokk wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu ñëpp nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi ziyaara ak ndokkeel da leen nuyoo bi ci sëriñ bi alxalifa xalifa maolana cheikh baye radiallahu anhu ci ndukumaan xalifa cheikh ibrahim ba ayadahu llahu wa nasara wa zaadahu sharafan wa fayda di ndokkeel ñëpp di leen nuyu ci bés bu tedd bii ci bërëb bu tedd bii waaye ci jaami yàlla yu tedd yii teew teewaay boo xam ne bu rafet la teewaayu mbuggeel teewaayu ziyaara siyaaratu istimdaad bil mahabbati ni ko oustaz Malick waxee borom taxawaay bu rafet boobu kon sëriñ bi mbokk yaa ngi nii ñépp ñëw nañ ànd ak mbëggeel di ziyaara gannaaw buñ defee benn ponk ci ponk yi lislaam yi juróom muy shahru ramadan al mubarak te xam nañ ne moos ba muy jeex rek feet la ñu ñëw xof ci sa kanam sukk sunuy wóom di beesal sunu mbëggeel sunu hando ci yalla di leen ngir yalla di besalit sunu mbëggeel ndax xam nañ ne buñ teewee fi buñ fi joggé ko fekk ñu ngi ko xam-xam ñu ngi ko ci bëpp anam ay faju haaju yépp kon teew bi rafet na waaye teewin bi moo gëna rafetal Darul muhibbin ajma wa akta ñu ngi ni tew ak mbollem soppi ak dëkkandoor yi kon yal na nanggul nangul ñu yal ñu yalla may barke may ñu xëbbool ak tawfiq li ñu mbeggel fiñ koy defé ni nak jar oustaz malik waxnako ndax bërepp la ci bërepp bi yalla yi te yàlla nee na ku màggal bërëb bi yàlla yi wala nga màggal ñu yàlla mun ne lu daal ak ragal yàlla la gu tukkee ci xol ci benn aaya ba kon loolu li muy tegtale mooy dëgg-dëgg ñu bëgg jëriñu ñëw nañ nag fu am njëriñ ñu mën a jëriñoo yal nañ jëriñu ñu ngi koy yaakaar yaakaar ak yaqiin yal ko yàlla defal dañu guddal sunu wax fi ne ñëpp ñu ngi nekk sëriñ bi ah mu def nam daan def ñu jële ko nañ ko daan jëlee yóbbuwaale ko jëriñoo ko yal na ñëpp ñibbi bi ak yiw waaye ñi fi desit ànd ak yiw ba ilaa hamil xaabil incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Seydi Imaam. yal na yàlla guddal fan wi. yal na yàlla may wér yaara bi. allah sëriñ bi. Eh, Cheikh Babacar Ndiaye mu may wax ne. monsieur le maire mu ngi ko yóbbante ci bokki taalibe yi waaye rawatina ci yow mu ne bis bi dëgg-dëgg bu ko utee rek am na lu ko métti mu ne bis ni ki tey monsieur le maire dafa ànd ak euh, monsieur le maire bu Kaffrine mooy ministère Abdoulaye Sidi Sow tey lay def passance de service mu dem fekkee ji ko nee na incha allah waaye yeneen programme yi des ba. Saalum Diané incha allah fas na yéene ànd koog yow mu ne nga ñaanal ko yàlla yàlla defal leen tawfiq ci seen liggéey ba kon ci loolu rek incha allahu dañuy jox Seydi Moustapha Bachir Ba incha allahu yàlla dimbale ko moom itamit mu ànd mu àndal mu àggal liggéey. aoudu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim di ñaan ndigal ci Mawlana Xalifa Cheikh Ibrahim ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqillah sayyidil awwalina wal axirin sayyidil alamina rahmatil alamina madadil alamin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الختم الولاية باب الولاية مولانا شيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن وارث سرهما بالإطلاق أبي الإسحاق مولانا شيخ إبراهيم مولانا شيخ الحاج عبد الله وإذا الله تام عن الأجداد المحبين الكرام الأدباء مولانا شيخ الحاج سالم جاني مولانا شيخ الحاج ماس مولانا شيخ الحاج بابو ngi nuyu sëriñ bi di ko ci bis bu màgg bi nga xam ne bisu sant yàlla la waaye ñu ngi nuyu imam abou bakarin naati xoros mi suñ bay alhaji suleymaan ba imaam alxaaji maas ba ak mboolem kilifaay xadratu daaral muhibin ñi teew ci zaahir ak ñi fàddu ci zaahir waaye ñi ngi nuyu itam mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñëw nañ tey bis bu màgg bi bàyyee ko ci gox yi fasante ko ci xadratu daaral muhibin waaye ñi nga xamoon ne ñi nga xam ne amoon nañ yéen ay ñëw bëggoon nañuy ñëw te yàlla dogalu ko ci saayir itam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ziare pàkk bi ñu toog bërëb bii nga xam ne nit mun naa wax ne mooy aéroport Maulana Cheikh Ibrahim Niass Ndoukoumaan pàkk bii mooy wàccuwaayu Maulana Cheikh Ibrahim Niass Ndoukoumaan pàkk bi mooy pàkk boo xam ne lépp lu yàllay joxe ci madadu Mawlana Cheikh Ibrahim ci ndukumaan amul sikk ci pàkk bi lay sotteeku fu may dem soo fay dem kon ñu ngi siyaare pàkk bi di siyaare ñooñ pàkk bi ñi nga xam ne jiitu woon nañ fi doon daagu ci pàkk bi di Mawlana Cheikh Alhaji Saloum Diané ñu ngi siyaare maqaamam waye seigne mam Cheikh Hadji mi nga xamne baye ko seedeel ne arif la fani la bo demé ci lettre ba bi baye da wax mala Hadji wax na ne al aariful fani kon borom maqam bo nga xamne serigne moko moo ko Mawlana Cheikh ibrahim Niass ñu koy ziaré ci bis bi waye ñi ngi ziaré ki yen seen maqaama yi ñoom ñaar di mawlaana Chalaaj Baabu Ba radiyallahu taala anhu nga xam ne bàyyee ko defaral boppam wóolu ko ci mboolem may yoo xam ne mu ngi koy joxe ma mawlaana Cheikh Ibrahima Niass liggéeyloo ko ci liggéey yoo xam ne duut ku ne la ko bàyyi da liggéeyloo xoolu ko lool def ci moom li mu def ci moom yan ko ñaari maqaama yi muy maqaamam Cheikh El Hadj Sam Diané maqaamam Cheikh El Hadj ngi koy ziyaare moom Mawlana Cheikh El Hadj Babou Ba nga xam ne jëmm la yoon joo xam ne dafa selloon ci zahir sell ci baatin sell ci baatini baatin ba boo ne ko jàkk sax te xamula ko sax rek sa xol dana ko bëgg ni mu sellee woon ci baatin dafa feeñoon ci zahiram set wecc loolu مقامام لا مي مولانا شيخ Laaj Baabu بروم borom may gu rëy gi borom bët bu sori bi ki Mawlana Cheikh Ibrahim wóolu woon ci mbiram yépp ñu ngi koy ziyaar ني ziyaare góor ñu baax ñi àndoon ak Mawlana Cheikh Laaj Baabu Ba nga xamne kenn xamul ko gën ci kaw suuf nit ku sel ku baax ku ragal yàlla ku bëggal mbooleem bindee fi jàmm ñu ngi koy di ziyaare ànd ndamba suñ bàyyi Cheikh Alaaji Maas Ba nit ku ñàkk caaxaan nga nit ku dëggu gi ci yàlla ga nga xam ne bi Mawlana Cheikh Ibrahima ñëwee joxoñ Cheikh Baaw Ba ñoom ñooñu Cheikh Alaaji Tafsir Ahmad Ba Cheikh Alaaji Ba ak seeni àndandoor seeni doomi bàyyi ak ñoom ñëpp xoolatuñ ne Cheikh Laay Baaba suñ magga wala suñ doomi bàyyi waaye dañ ko doon xoolee kii mooy Mawlana Cheikh Ibrahima ci ñun topp ko topp bu rafet dégg ndigalam lépp lu mu digle rek ca lañ nekk lépp lu mu tere kenn du leen ci gisati nekkoon ay taalibe koo ci daan waxal ci ñoom rek bu ne sëriñ bi rek xamal ne Cheikh Laay Baaba lañ ci jublu kuñ jox askaaru tarbiya ba sa sayru ci yàlla mat dañ lay xamal ne ñun sa mbokk taalibe lañ waaye sëriñ bi mooy Cheikh Laj Baba noonu lañ doon yare mag ñi yàlla rek lañ bëggoon yàlla rek lañ doon xeñtu yàlla rek lañ doon wut moo tax seen ànd gi ànd gu sell la dama gis ci suñ ba laaj yàlliw ay lijaasa yoo xam ne Mawlana Cheikh Laj Baba joxoon na ko ko mu denc ko ba dem rafiqul aala nam ko ko joxe woon noonu la ko dencee keroog ba ma ko gisee ma ne mag ñi kenn gënu leen a sell na Cheikh baabu mi nga xam ne bàyyee ko joxoñ jox ko ndigal ci lépp muy xalifa bàyyi nga xam ne moo sañale moo sañ a dindi lépp lu bàyyee joxe ci xadaratu daaral muhibbin ci moom la koy sotti mu jël ay lijaasa jox ko ay mbokkam ne leen bu ngeen yaree nit ba óolu ko ci yàlla jox leen ko lijaas ma ne ndaw ku baax waaye mbokkam yi itam ñoom uutu ñu dul yàlla uti ak jamono ji léegi lijaas yooyu ñoom itam dañ koo denc ne chalaaj baaw mi bàyyi joxoñ muy xalifa bàyyi moom rek moo sañ a def moo sañ a dindi lijaasa yi duñ ko mos a joxe ma ne ute naag li xew ci jamono ji léegi loolu yépp dangay xam ne mag ñi yalla rek mo taxoon ñi and yalla rek lañ bëggoon and ak ne lo rek kay jëri and boy and rek andal ngir yalla boy bëgg bëggal ngir yalla la chaque ja nga jëriñ waaye lo loo bëgg ci biir yalla lu dul yalla ndem lu dul yalla amna lolu ki kii daay la rek daf lay tardel kon nañ jëlluwaat ci jikkoy mag ñooñu nañ jëlluwaat ci yaram mag ñooñu nga xam ne ñoom nekkuñu woon ci dara lu dul yari Mawlana Cheikh Ibrahim lépp loo gis bàyyi bind ci téeréem yi boo xoolee Cheikh Laay Baaba ak ñu ma àndoon toon ak ci ñoo rek lay nay gis li ngay gis ci téere bàyyi ak li ngay dégg ci kàddu yi bàyyi ci kaset yi booy ñëwee moom rek ngay gis ci Cheikh Laay Baaba moom gis moom ngay gis ci ay àndandooram loolu nag dëgg-dëgg daaral ma fi bi ne fu mu yegg rek loolu moo ko fa yeggal mbir mi lépp ci sellal rek la nekk mbiram mi ni mu ko rëddee tegee ko ko rek ku bëgg jëriñu foofu rek ci ngay aw te wax na ko wax na ne wa kullu man yuridu al intifaa bina wala budda an yaxfada ma yaxdanu mina nasman wa nasra képp koo xam ne yaa ngi ànd ak man bëgg jëriñu fokk ngay bàyyi xel samay dénkaane ak sama yar ak sama melokaan nga mel ko te ne ne taalibe yi ñi nga xam ne ñooy sama taalibe mooy ñi nga xam ne li ma nekk ma ak sama taalibe ci lañ nekk loolu nak deug deug moy siru daral muhibina moy la bay waxone bu yonent bi doxé ma dox su taxawé ma taxaw deug deug loolu ñu ngi sante yàlla di ziar bu baax a baax a baax xam naa Seydi kàddu yi daf ñuy bett lool li ci topé rek nga xamné madalu sëriñ bi la lu ci manké rek nga xamné jaamu xew bi la ak kàddu yi bett lool ñu ngi ziaré ñep ñaan yàlla yàlla ñu ko téye déen sëriñ bi yàlla yàlla loolu li ko tawfiix barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yaakaar naa ne keroog sa nalaal bi ñëpp kontaan nañ bi waa ji waxee bi sëriñ bi yegsee ci place ci place bi dafa wax ne tey lañuy ñuy dalal ki dàqa wax ci Mawlana Cheikh Ibrahima yaakaar naa ne alam bi yëngu na lool soppi yëpp dig nañ loolu dëgg-dëgg sant yàlla la ñu ngi ci ndokkeel sëriñ bi di ci ndokkeel mboolem daaral Mouhibine ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Seydi Moustapha macha allah jërëjëf lépp man na dara manqué wu ko yàgg di def yàlla macha allah xam naa di wax rek ne euh, ki nga xam ne nii mooy euh, usas Babacar Thiam nga xam ne moo yore faydatu tijaan yi moom lañ jàkkarle nii moo yore faydatu tijaan yi waaye ànd ak rakkam di bàyyi alaaji Thiam moom itamit mu ànd mu indi si tirbin mi dina bàyyi waaye ñu ñëw fekk fi ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoom itamit kenn demul ñu des mooy wilaan wisu nga xam ne Malick Wilane moo ko yore hélas Malick Wilane waaye dëgg-dëgg suñu bos suñu kos di Cheikh Mbaye Babacar Cissé Daarul Muhibbina TV waaye itam RTS ñëw na moom itamit xàmme nañ ko ci balaa ci place bi dëgg-dëgg am na itte yal na yàlla barkeel leen di wax ne itamit ne Habibou Diallo moom mu nga jógee ba Kaffrine waaye ci di ndawal Thierno Moustapha Diallo kon ñu ngi siyaare mbooleem soppe fi nekk waaye di def nonu rek di jox kàddu gi Cheikh Alhaji Omar fay joge ba Medina bay ñëw fi kon ya Alhaji alkalima bayna yaday asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu kilifa yëpp xam kàddu gi bett na Cheikh Moustapha Ba waaye man it na ma ndax waxtu bu may ñëw fii ci Ngoliba damay ñëw pour taataan waaye du ñëw pour jël kàddu ñu ngi ndokkeel sëriñ bi bu baax di nuyu xel sama nijaay yi fi nekk yëpp ak sama sang yi sama ñëpp ñu ngi leen nuyu di di wax ne ci kàddu yu gàtt rek ñu ngi ndokkeel ngoli ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ndax ci jamono ji ñu toll ci waxtu bi ñu toll. amul fenn foo xam ne nit nekk na fa mun faa jëlee lu ëpp li war a mën a jëlee ci bésidaay bii loolu moom lu ma leer la kon nag képp ku fi teew rek ñu ngi lay ndokkeel ci boole gi la yàlla boole ci jotaay bii ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ne su ngeen rombee dëru aljanna yi na ko ci wicc ci meññeent bi نقول لن موي دارو الجنه يا رسول الله من حلق الذكر او كما قال تفوقنا ني جيو ذكر تي لاي نيك ني كون دير لا تي دارو الجنه يي يانت بي وخنا صلى الله عليه وسلم امنا بيان برب تي برب بي سوفاني تيوي لا گنا نيو تي موم موي سيتنا ويتي تي بكار ndax hadith yonentou bi sax sallallahu alayhi wasallam bamuy wax حقد محبتي في لم تتنك لب ما نتجو تايبي نيو خامن لنيو بغنتي نغير يالا دي زيارة وانتي نغير يالا دي توغا لانتي نغير يالا دي دندل سين على نغير يالا بغنتي نغير يالا توب لولو ريك ما في نك في مي دانيلي موي ماغي ندوكل سيرين بي شيخ ابراهيم با الخليفه ديكو نيانال يالا مي مونا سامو يانا كو يالا سامو يالا مي مونا ووت يالا كو يالا ووت yàlla mi mën a dimbale yàlla na ko yàlla dimbale waaye képp ku koy dimbale it ñu ngi lay ñaanal yàlla bokk ci nga bokk ci ndimbal loolu mu am di wax ne nit dafay xam li mu am nit dafay puukarewoo li mu am nit dafay tiitaroo li mu am Cheikh Moustapha wax na léegi li am keroog ci quartier général bi maa ngi jógee Banjul barki démb groupe ba fa nekk boo xam ne nii ci groupe bi suñu maam Cheikh Omar fay Moustapha mënu ma damaa gis ne kii borom xam-xam la rek ma jël li may wax lépp di ko dugal ci groupe bi te xaw ma ne sax waxtaan wi danañ ci tudd Cheikh Omar Faye mu ne ma imaam mu taxaw mu ne ma ñun daanaka ñoo moom jotaay bi ndax wax yu rafet yi nga xam ne wax na ci keneen mu ne ma kàddu gi ma nekk ko waaw mu ma anglais yi ñun ñoo moom quartier général bi yàgg na fa am waaye ñu ngi koy doog a dégg ni ñu ko déggee nii tey li ma ci jeexalee mooy ne bés boobu bépp jigéen rekk bëggoon nga wax ne kii man maay yaayam waaye góor gu ne it bëggoon nga wax ne doom ji man maay baayam waaye loolu yëpp nag yàlla moom day maye nu mu ko neexee ndukumaan gii la ko yàlla sedd sédd xaasatan Kaffrine xaasatan Ngodiba gii kon nag loolu bés boobu yéen la yàlla defal ngeen ko drapeau buy folete ci kaw àddina bi wallaay bés boobu Ngodiba moo la ko drapeau bi nga xam ne mooy wëndeelu ci kaw suuf kon nag na xam ne kii ngeen am kan la lan la ngeen fonk ko jàpp ko téye ko gis ngeen bési démb gi ku nekk la yëre yi gën defar ci yow moom nga génne pour sol ko ngir fonk gi nga fonk bés bi nga xam ne mooy bési korité te bañ taxawee ba mu jege ci kanam ñëpp xool sedd na ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dimbale yàlla na ko yàlla wut yàlla na ko yàlla aar maa ngi ñaan ci fii ñu toll ci nga xam ne nii suma doomi nijaay la te billaahi lépp lu ma ko ñaan yàlla dina nangu képp ko ko xaar yàlla nga xaddi képp ku ko xaar yàlla nga xaddi dalee ci man yi di ko ñaanal loolu képp ku ko xaar yàlla nga xaddi yàlla na jëm ca kanam yàlla ko yàlla téyal boppam yàlla bu mu jàng yàlla bu mu daanu yàlla bu benn cëram ayib yàlla bu mu fattu yàlla bu ko dara sonal lépp lu nar jëm si ci moom yàlla na ko sama borom aaral boppam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi بركة الشيخ تجار بركة سمن يا شيخ حاج باب الله صلى على سيدنا محمد وسلم الله الحاج عمر فاي ما شاء الله كادو امنا سولو رينا هين لول واي يالنا كون نوبي ديغ واي يالنا كو خوجي تام تي 100% بجاي رسول الله الشيخ سي عمر تي كارت سنلا دا فا ام بن واي بو خامني دا فا نيو بو سما نيك سما كو خون صاح كين نيو ويدوك واي دا فا نيو بو سما نيك مو تانو تي سما لال نيما li ma tax a jógee ko fu ma dëkk ñëw ba fii dinaa la ko wax mooy Cheikh Ibrahima Ba ba ma ko gisee rek la la sama xel daj bi mu waxee ba pare mu ne sama doom ñëw ci man ne ma bàyyi mu ne ah dañ ne Barham Diop dee na mu ne ah mu ne ko Barham Diop deewul Barham Diop ngi nii Cheikh Omar li nga ñaanal sëñ bi yal na ko yàlla dafa yàlla kon ci loolu rek dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moom itamit wax dëgg yàlla ku nekk xam na taxawaayam ci pay bi waye ci hadara bi waye lam nekké kafri ci doxal ci lépp bok ci association imam yi ba pare nek president ansaruddin ci kafri muy imam al ustaz al alhaaji hadi Ba ñu jox ko kàddu bismillah alhamdulillah rabbil alamin ñun ñep ñu bok wax alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant maulana cheikh al islam ak xaaji ibrahima ñas di gërëm suñuy waajur suñuy maam waaye di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jël nuyoo bu tedd boobu nuyoo bu sell boobu teg ko ci loxo ki fi yàlla teg muy alxalifa العالم العلامة صاحب الرحلات صاحب الحلقات صاحب الاجتماعات الواعس الكبير أيده الله ونصره خليفة دكمان شيخ إبراهيم با إن يلا يقصفا أكسوير سنت يلا بباخ تبس بي دار المحبين لن يوخ doy na ci rek rusul alayhimu salaatu wasalaam ku nekk am na garaat waaye sangu-sang yi moom bimu ñëwee yàlla da ko def muy habibullah muy soppeeb yàlla bi kon bu mawlaana cheikh al islam xaaj ibrahima ñas ñëwee ngodi ba tuddee leen daarul muhibbiina wallahi maqaama maqaamaat saaliya darajat kubra li ahli ngodiba jamian ñu leen ci ndokkeel bu baax bés nag bu ñëwee la mu yelloon rekk nañ ko ko jox dëgg la ziyaara la waaye nag dafa am lu xew mooy dañoo jógee ci chehru ramadaan al mubarak muy weer wu mag weer wu tedd muy chakru boo xam ne dafay présenter iqraar bil ubudiya saxal gi nga xam ne dañ ciy saxalee ne yàlla rekk yàlla mais am na ay jaam yoo xam ne yu sell la ñu ko gëm yàlla bi mu bindee xel ba pare def na ko aqbil fa aqbala mu ne ko mën anta wa man ana yow yaay kan man may kan xel na ko anta rabbul jalil yaay borom bu màgg bi wa ana abdu daif may jaam bi lottu bi mu ne ko ma xalaqtu aazza mink binduma lu la gën a foor yow xel moo tax boo gisee ñeneen ñi jëfandikoo yeneen jëfandikoo rek da ngay xam ne amaguñu xel mu sell yal na yàlla mayee xel mu sell bu mu tourné wax nafsu ne ko aqbil falam yaqbil tourneel bakkan lànk yalla mbugal ko ci safaraaw jahannama at bi mu ne ko man anta wa man ana yow yaay kan man may kan mu ko anta anta ana ana yow yaay yow man may man nga bakkan ni mu dëgëree bopp rek yow yaay yow man may yow yàlla dugalaat ko safara ci naarul juuci miata sanna safaraaw xiif la ko dugal téeméeri at ko ca dugalee na ko no man anta wa man ana mu nekk ko anta rabbul jalil wa ana abdu daif yaay borom bu màgg bi may jaam bu sell bi bokk na ci ma bi nag yàlla jël jaami yàlla yi teg leen weer wi muy weer woo xam ne weeru mën nañu wax ne atelier la wala séminaire la ñi xaaj ko ci ñetti fan ñetti ñetti ñetti ñetti xaaj atelier bu njëkk bi ñu ngi ko tuddee maxfira woor nañu maxfira bi mooy fukki fan yu njëkk yi yàlla nañu am maxfira min rabbil alamin yàlla nañu ko yàlla defal yaa ñu demaat ci deuxième atelier bi ñu tuddee ko fukki yoo xam ne euh, raxma la jaami yàlla yi sell te nangu woon a woor it def ko ba mu jeex yal na yàlla jox ñu attestation bu ñuy wax raxma yal nañu ko yàlla defal yaara bi ñu jógee ci demaat ci fukki yi ñu mujj yi nga xam ne mooy et kun fi naar yi et kun mina naar kon mi ngi mel ni bi ñu paree fukki yi la ca des rek mooy ñu jox ñu laisser passer pour dugg aljanna ñun ñi fi nekk ñëpp yal nañ dugg aljanna yaara bi bu ñuy dugg aljanna nag ñu ngi dugg ci baabu rayaan nga xam ne kenn du fa duggee lu mooy ñi doon woor kon yaakaar naa jaami yàlla yii aju ci daarul muhibbiin xaw ma kan mooy bañ a woor weeru koor xanaa ko am ngànt waaye képp ko aju ci daarul muhibbiin yaakaar naa ne buñ ne weer wi teru na woor rek ngay def kon ñetti attestation yooyu ak laissez-passer aljanna boobu yal na ko yàlla defal daarul muhibbiin te am nañ ci yaqin ne yàlla dina ko def su ko defee nag ñi tourné rek di wàcce kilifa gi ci palaasam xam nga bi ñu jógee ci kër gi di ñëw bu ma joxut misaal ci keneen it ci ndaw kandaa yi mbaa jàll jàll yi am naa droit joxe misaal ci sama bopp xanaa fauteuil bu xonq bi bi ñuy jógee ci kër gi su fekkoon dama ne ñamaas ñamaas ñëw ci fauteuil bu xonq bii ñëpp danañu wax ne eh, waa kii kat xamut boppam loolu la ñuy wax ki xamut boppam waaye ki ci war a toog bi mu ci toogee ñëpp xam nañ ne ki ci war a toog toog na ci kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxnaam Aïcha radiyallahu anha dafa am ku ko gane si mu ñëw jox ko ay dammitu mburu mu lekk bi mu ci paree keneen ne asalaamaaleykum Aïcha entré ko indil ko assiette bi jox ko mu lekk ba suur saaba yi ne waaw Aïcha lu xew kii ñëw nga jox ko ay daggiti mburu kii ñëw nga jox ko palaat bi mu lekk ba suur mu ne hakaza amarani rasulullah ñii la ma ko yónnente bi sallallahu alayhi wasallam sante anzilu naasa manasilahum wàccee leen nit ñi seen palaas moo tax ñun ñëpp nañu bokk ñu nangu wàcce borom palaas bi ci palaasam du wàññi dara xam nga tey su fekkoon dëkk yi ñu wër yëpp dañ ne am nañ sëriñ ba mu des ngodi ba yaakaar naa danañu naqari lool waaye buñ nee sëriñ ci ndukumaan ñene kan mooy seen sëriñ wala kan mooy seen xalifa ñene ne Cheikh Ibrahima Ba yaakaar naa fu nit mën a siggee waa ngodi ba danañu mën a sigg ci xam-xam bi ci lewet gi ci mbaax gi ci tournée yi ci jëriñ jaami yàlla yi macha allah jaami yàlla yi ku leen considéré na jaami yàlla nga da mën a def ci jaami yàlla yi dara waaye ku leen considéré wu dara doo mën a def ci ñoom dara moom nag considéré na jaami yàlla yi dara lañ moo tax mu ngi def ci ñoom dara bi chef ramadan yu commencé rek yaakaar naa ne musaada al ghizaiya bi ñëw jaar ci loxoom teel na ko yàlla gën a yokk yaare bi keroog dama dégg ci moom mu wax ci wax yu solo yal na nekk dëkku ni mu nekkee dëkku xam-xam dëkku wilaaya yal na ko nekkee dëkku boo xam ne dëkku jéggukaayu njëriñ la ci àddina bi yal na la ko yàlla defal yaara bi soo demee ci daje yi ñu kontaan soo demee ci rajo yi ñu kontaan boo demee ci télévision yi ñu kontaan benn mbooloo moo mën a dem ba ñu gëstoo gis la képp ko aju daalul daarul muhibbina di nga mën a siggi doo sëgg mukk te doo rus yàlla bu ñu rus àddina yàlla bu ñu rus àllaaxira sering bi ñu ngi lay ndokkel ñu ngi ndokkel entourage bi damay faral di wax ne man ma ngi ñaan yalla yalla may ma ci lima yalla may ak lammeñu yi may waxe bu ma wax mukk lo xamne ne bëgg na ci xoss jaam yalla yi yalla neena na wa xuulu li naasi xusnan waxalal nit ñi lu baax ba mu fasir ba ma demee Dakar di wax di wax dekk ndor ya dëkkandoor ya, dëkkandooram dëkkandooram fa mu yàgg benn waaye ne ko eh taxawal mu yaa mu ñoy compte 100000 francs ne ko am damaa bëgg soo demee nga joxal ma cent mille francs yi sa dëkkandoor bu baax boobu waaye lii mooy nit ku dajale nit ñi fexeel nga wax loo xam ne dana attirer daam yàlla yëpp ku bañoon sax gën a bëgg kii Sowetaas la ci dëkk bi su jafe-jafe amee moom mooy taxaw mooy lijjanti am na ñu ko rus am na branloo waxuma sax diggante moog yàlla waaye diggante moog jaami yàlla yi rek macha allah fu mu fa taxaw fëgg rek buntu mën naa ubbeeku kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a ubbi port yi mais nag li ko gën a am solo mooy wér gi yaram gi ak fan wu gudd gi ak xel mu sell mi yàlla la ko yàlla bàyyee maa ngi bëgg a guddal gërëm nag euh, sama papa Mahmoud mi nga xam ne moom la ma yàlla boole ci Kaffrine te muy ko sell nekk taajir amin nekk imam moxlis waaye duma faté ki nga xamné outal utal naa ko tur woo xam nit ñi sax faale wuñ ko waaye nak dama ko tuddé luqmanul usrati moy anatu rasmi al abu sulaiman ba ayadahu allah wa nasra wa kadhalika al imam an nasih cheikh abu bakar allazi naaba abahu al karim al cheikh tafsir ahmed ba wa man fi maanahum jamian wasalaamu aleykum wa rahmatullahi

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحبوب عليهم ولا الضالين آه القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإسم ربهم من كل أمر سلام هي حتى القدر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإيلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله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 mooy seen njiit Seydi Moussa bu ma jumee nga jubanti ma waaye ànd ak mbokkam Sadio Ka Thial ak Imam Baara Sadio Ka moom foo ne sëriñ bi rek mu jooy kon dañuy jox Moussa Ndaw kàddu gi bismillah bin sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim salaatu wa salaam ala rasulillah ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaye di jaarale nuyoo ci ki nga xam ne yàlla moo ñu ko tànnal jaarale ko ci kilifa gi nga xam ne tey ci àdduna moom mooy la ñu xoolee rasulullahi sallallahu taala wa sallam moom la ñu xoolee cheikh na ahmed tidiane sharif radiallahu taala anhu amul sikk na loolu ñëpp nangu nañ ne cheikh al la El Hadj Ibrahima mu tànnal ñoom nit kumaan yëpp yëpp coow li bëri lool pënd bi nekk fu nekk mu ñëw seppi tànn xool joxoñ suñu maam suñu baay suñu kilifa El Hadji Babou Ba ne kii moom laa tànn def ko xalifa ci Ndoukoumane te sikk amul ne Cheikh al moomu nga xam ne moo ñu ko tànnal joxoñ ñu ko sëkk amul ne du juum du jàll yàlla di def li ko soob ci moom waaye ku xool jotaay bii nga gis kilifa yi toog nii wóor ni ñii képp ku ñu xool nangoo toog ci wetam nangu koo toog nga xam ne am na lu yàlla def ci moom bàyyi moomu moo ñu tànnal ki nga xam ne moom laa ne damay jaarale nuyoo bi ci moom muy alxalifa Cheikh Ibrahima Ba ndax li tax ma ne Baye moo ñu ko tànnal képp koo xam ne tey toog nga ci jal bii te Medina Baye yow la ñu xoolee Cheikh al Islam El te sikk amul ne xalifa bi bi suñu Baye El Hadj Babou génnee àdduna moo ñëw taxaw fii joxal ñoom ñu Cheikh Ibrahima Ba ni de tànn naa ko muy xalifa fii ci Ndoukoumane kon Cheikh ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla mi nga xam ne mooy borom kun fa yakun yàlla mi nga xam ne moo téye mooy taaw moo mën a aar yàlla la bur yàlla aaral bopp yàlla bur yàlla guddal sa fan. yal na pour yàlla yokk maqaama bi yàlla barkeel xam bi bés bi nga xamee ne dama def sa ñaan ca ñaan di ñaanal sama waajuru góor nga ñëw def fa waxtaan wu rëy conférence bu mag te yow ñu jokkoo ci téléphone nga ne ma Moussa li ma lay ñaanal yal nga mucc cheikh bi may dama lay delloo ñaan boobu di la ñaanal na nga mucc ak képp koo xam ne rek yaakaar na cheikh bi dañu am kontaan ak mbégte bu baax ndax ni ko sëñ Aliou waxee léegi cheikh bi bu waxee ci rajo ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw suñ xol dana set cheikh bi bu demee mbooloo ko gis da nga sikki waaye cheikh bi keroog bi nga toogee télé quartier général man dama jàpp ne lépp loo xam ne réeroon na nit si Cheikh al mi nga xam ne mooy yaakaari jaam yi keroog leeral nga ko ci kanam askan bi ndax man de damaa gis ne quartier général kilifa bu ne toog na fa waaye keroog ba nga fa toogee ah, damaa xëy ma envoyé ko vocal ne ko sëñ bi suñu na sëñ bi li nga def defaloo ko sa bopp ñun nga ko defal ñun taalibe Baay wallahi la azim mu ngi di kon ma ne ko li nga def defaloo ko ñun taalibe bàyyi ba ko defal waaye defaloo ko nag waa Kaffrine rek defaloo ko Ndoukoumane rek waaye àdduna yëpp ba ko defal sëñ bi xool ñëpp seen parce que ña fa doon toog ñëpp dañ daan wax ci zaahir bi mais ñoo indi baatin bi indi international bi ba képp ku xamuloon kan mooy bàyyi kan xam na kan mooy bàyyi kon cheikh bi ñun duñ am lu dul rek kàddu yi duñ ko guddal dañ koy gàttal yemale ko foofu waaye ñaanal képp ku fi ñëw ci daal soxla yàlla bu yàlla faj aaju waaye Cheikh bi yàlla nga yàgg suñ kanam yàlla may la wér may la kàttan nga yàgg ñoo jiite lool lool asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu jërëjëf ci barke Baye Niass kon ci noonu rek euh, dañuy continuer kàddu gi waaye di wax rek ne euh, sëñ bi yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal di di ñaanal ñi nga xam ne xamaguñ ko rek ñu xam ko waaye sëriñ bi ku ko xam rek doo ko bañ waaw ngi ñaanal ñi ko xamagul rek ñu xam yal na leen ko yàlla defal yàlla parce que ku ko xam rek doo ko bañ mukk parce que boo xoolee kuy wane ne da nga koo xaw a bañ sax ci la yàllay gën a doxalee mbir mi parce que boo xoolee fan yi li ko gën a bëgg li ko gën a xam ci àdduna bi dëgg-dëgg su fekkoon ne yow mi nga xam ne am nga ñaari xel rek da ngay nangu rek ñëw yal na yàlla dimbale ñëpp nangu kon dañuy jox ki nga xam ne dama koy wax toujours bu waxee rek. fàttali mag ñi waaye bu waxee sóobaat ndaw ñi ci yoon boo xamante ne ni ku ci awra dëgg jëli muy sunu baay anaatu ko rasmi bay alaaju Souleymane Ba waaye moom it di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér bay alaaji yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér waaye lépp loo ñaanal nit yàlla na ko yàlla nangu rawatina alxalifa Cheikh Ibrahima Ba kon ñu jox ko kàddu bay alaaji kàddu ga bismillah ñun ñett nañ xànd wax alhamdulilahi rabbil alamina ñetti yoon alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilahi rabbil alamina jubluwuma ci loolu dara de lu may ndola nan yàlla rek wax gi yàlla ma ko sant ma wax ko di yaakaar ne liñ ci digge danañu ko jox yal nañu ko jox sama kàddu yi mën naa ñàkk gudd de tey ndax ñi ma jiitu awalan Babacar doomu taf si Hamad Ba di borom xam-xam di ku yalla may di ku xoyof di ku bax di ku xam katan di ku nangoo tànn kilifa waaye ku nangoo topp kilifa te xoyof lol te yalla reeyal ko nak lol fa tabarakallahu ñu ngi koy ndokel di ndokel suñu bop di sant yalla ci waxam ji ma sha allah di ndokel suñu dom muhammad mustafa Basiru arif billah ku jeex ci yalla ku jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku jeex ci Cheikh Ibrahim Niass waaye ku jeex ci Cheikh Ibrahim Ba di kuy liggéeyal pay bi te làmmiñ wi làmmiñam wi du dukki mukk di tudd yàlla ci guddi ak ci bëccëg amul joti wax sax ñu ngi koy ndokkeel ci waxam ji am ci mbégte lool fa tabarakallah di ñaan yàlla mu saxalal ko te sàmm ko te sàmm ñi ma jiitoole di ndokkeel suñ doom Amadul Haadi doomu alaaji baabu ba waaye di doomu tafsir moot ba mii taawu alaaji maas alaaji baabu ba tànnal ko boppam taf ko ci boppam di ko dimbale waaye di ko digal di def lépp loo xam ne mi ngi koy wax daf naan waxal xaadi ne ko nangam nangam wax dëgg yàlla xam na lu ko mënoon a fëkk moom Muhammadul Haadi waaye yàlla dimbale na ko xam na lim doo xam na xam na fi mu bokk boroom xam-xam la bu sell nit ku xoyof waaye nit ku bëgg lu baax am na xew bu amoon këram ñépp di ko tagg ci mbaaxam man ma ne ko fa ñukk ni yàkk bu naqadi tagg ndeyam mi nga xam ne moo ko liggéeyal li mu am Mamadou yi ñu ngi lay ñaanal yàlla fan ak wér yéen a ngi bëgg dalal nag sama xel ci keno yi ma gis ñu wër sëriñ bi tey ay ndaw ni ñoom te xam wàcc seen ak mbëggeel bëgg ko te yàlla tax fas ko loolu danay dalal xel de sama xel a ngi gën a dal bu baax sëñ Moussa Ndaw ma xam ko lool yàgganda Cheikh Laaj Baaw ba ñuy dem kër baayam sëñ Moussa yàgga dox Kaffrine musuma gis Moussa Ndaw dugg sareet wala dara te booba oto xamu fi sooy dem dajeeg moom sooy dëpp dajeeg moom booba day dara yombut sa baay noonu la doon def Moussa Ndaw ma xamal la ko xamoon nga ko ah Adama Adama Ndaw Adama Moussa laay wax doomu aadama Ndaw xam naa ko bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal yàlla fan ak wér sa wax ji ci sa xol bi nga ko tibbee te yéene nga ko te bëgg nga ko waaye moo wax la ne ni nga bëggee woon guddi googa noonu la mbooloo mi yëpp bëggee woon am na ku ma wax ne ma guddi gi damaa jënd war warga ak suukar ak meew ne gaa yi nag baraadu bu jeex rek tegaat leen bu bët koo kooko dee kontaanoon na te sori na fi lool fa tabaarakallaahu te moo ma woo wax ma lool ma bëgg a dalal seen xel yéen ñëpp Moussa Ndaw ne na bàyyi du juum waaye yàlla yi dee du juum te yàllaa def te yàlla buñ jéem buñ ko jéem dindi yàlla buñ ko jéem a weddi yàlla nañ ko gëm yàlla nañu yàlla boole ci ñi ko sopp te yàlla boole ci ñooñu di wax mbokk yi toog yëpp ne leen benn misaal de yàgg naa koo nettali ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu dafa wàcc Paris ci aéroport bi ñépp di ko teeru ñëpp def ni ngeen def nii bàyyi ngi dend ak benn xaritu tubaabam comme ni ma dendeeg sëriñ bi du ma tubaab bi nag mu xool xool xool ba mu yàgg mu ne bàyyi waaw xanaa ñii da leen aye tux bàyyi ne ko loo gis mu ne ko ah, mbooloo mu ngeen nii yëpp gisuma kenn tux mu ne ko déedéet ayewuma leen tux dañoo gis ni tuxuma rek ñu xam ne waruñoo tux gis ngeen wax jooju ngeen dégg ko baax li ma ci bëgg a wax Cheikh Ibrahima ba mënut a wax ak ku ne mënut a ci lu ne amul droit ci wax kii bakkale waaye nag ñun war nañoo am xelam xool ko lum def ñu def lum ba ñu ba waaye loolu war dañ koo mën nag waaye toog fii naan ko lum ñuy wax lu sëriñ bi wax loolu du teggiin xoolal rek lum def def dégg naa Cheikh Ibrahima Niass mu ne suuf si baax na barke na nangu na lu ne waye ma ngi leen di wax ne xol leen lu ngeen gis ma bay rek bay len mooy wax ji rek lolu ma ngi koy digal sama bop di ko digal ñëpp ci xeet ju fi jox nañ ma kaddu aada la waaye la ma wax je moy Cheikh Ibrahim lo diglé dana ko def lo téré dana ko bax dana ko balo sama ñoñ nit ku ne dafa xam fu ma xamam hen ñeenti borne yi ma xam ba ñay fanaan ca ñooña maa leen xilif lu Cheikh Ibrahima bëgg duñ ko def aw ma nag droit ci ñeenti bor nay jàmbur waaye am naa nag laa bii rek digal ko mu jéem mbaax foofu laa tënk aw ma sonn ci wax jeeg yëf ji ku bëgg li mu bëgg rek bëggaale naa la ku bëggul li mu bëgg bañu ma la waaye mandu naa ci yow loolu mooy sama mbir Cheikh Ibrahima yëf yi nag dana metti ku xeenu li ñëpp bëggoon taamuñ ko ñaañaan ñëpp dañ la koy jéem a xañ waaye xam nañ li nga doo de du réere de alaaso di xañaan du doo sang mukk dafa am benn saaliwu bu baax baaba min moo ko nettali mu ñëw fekk waa joo xam ne julli na fajaat def la raatam ak yëpp ba tëdd baaba mu ne seytaan ñëw ne ko pëkk pëkk ne ko yow kat yaangi teud fi yalla jaangi xiin guddi gi fay taw te taw bi dana mabbu sa keur te su fekke nga faatu yaak sa njaboot gi taxul ci guddi gi waa ne bërit te doom yeek sët yeek ñëpp ñu toxu yalla ji taw ci guddi gi ba ma re tal keur gi yeb mabbu maas mu ne ah bi mu xëyee man de seytaane xamewuma koon baax waaw li mu digel mo mom dana ko ko laaj mu ko setan yow li nga defal ni biig yiw yi nga ma indil ak teranga ji yow li man fogelu mo lo ko ndi ndeke yow ku bax nga mu ko ha ah, lol nga fo mu ko ah mu ko dede dama gis nga set wecc te bo de ci guddi gi dem xal jànn mo beug la toxal nak mo yalla li lii laa la yéenoon tax ma toxal lol nak bu len ko def ay lem mbir la de gis nga wax ji lepp bu ci ken xam soxla yaw xamal soxla ci li nga bëgg rek Baye Niass wax na ne lu dul Ibrahima hëmb na dana xam doom wax nañ ma ko la tax nag duñ ko wax mooy dañoo xam ne ku ko wax ñu ne ngay fen ndax góor du hëmb du jur waaye lu dul loolu wax nañ ma ko Cheikh danañ la wax lu ne Cheikh Ibrahima danañ la def lu ne Cheikh Ibrahima dañ la fexeel guddi dañ la fexeel bëccëg Cheikh Ibrahima magi pay bi yëpp dañoo dajoon wax Baye ne ko Cheikh Ibrahim taxawal doy na sëriñ saa ci sa kaw buur yaa ci sa kaw noon yaa ci sa kow mu ne leen na seen xel dal dégg naa ci làmmiñ ñu kudut fen mukk mu ne mbindeef loxool mbindeef muy loor doo ak ci man loolu moo ne ci yow Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima la du soppeeku mukk misaal yi ma ciy jox wax naa ko bërki dem ma ne turandóor li tax mu baax salaatu faatee mooy musal ñëpp waaye salaat si ñuy ñuy bay ci sàddee bi du dugg safara mukk lu dem ci lu tàng te ku ko lekk lu loo ko lekk ndooroon boo fa bayee ko salaat rek ngay tudd ngay wax salaatu fatiha ko ko may Cheikh Ibrahima maa ngi wax ci baaxab yàlla waxewuma ci sama xawaaw nafsi de waaye billaahi yàlla rek man ci yow dara ku dul yàlla mënul ci dara li nga xam jox nga ko jaamu yàlla li nga xam yaa ngi koy waxal jaamu yàlla yi fi nit ñi wutee lu baax yaa ngi fay dem di wuti lu baax loolu rek nga mën waaye lu dul loolu li nga jëfal yàlla rek xam naa ne nag wax yi bëri waaye ma wax leen ne te mu wétt wóor daan naa ko wax te yàgg koo wax prep rek moo lay song ku bëgg a yàqu it moo lay song kuñ weer kuñ yëkkati ba ñëpp di ko séen ci ngoon dana daanu ci sa kanam nga gis salaamaaleykum wa rahmatulah kon nañ ko daan defee rek balaxa zeylu suba ñun ñëpp kat fi jëm si woon teer si nañ kon duñ def lu dul defaruwaat fagaruwaat utaat yeneen ndab yu bees fexe root lu bëri yóbbu séddale incha allah kon fam daan jaar rek la ñuy jaar ñu jox Seydi Ali balaa àgg ci Seydi wa Mawlaaya alxalifa Cheikh Ibrahima Ba di ko ñaanal yàlla fan gudd ak wér gu yaram kon ñu jox ahlu xadaratu saakira ñu sikkar Saima lislaam benn sëriñ mënu fee wax na dem na daara su ko ñaan amutoon loolu moo di ak mbaa su fekkee ngay dem loolu doy na xarba bal nga leen ñetti at laata jël ko suura na raw na rek mu ngi maasam ne xal yow Rabu samawati wal ardi doy na koy dee miski so pole ga sunu ro so pon so man

It is all

ثم تذكار وحده وهو وعد من كرام وهو جميل المحيين فالكفران حقا يكون حيث كنا له سجنا وإنا أرحد الناس وإلهي يحيين dundal te wéral dara. amiin sunu xalifa dundal te wéral dara. amiin ci barke Baay. yaay soppandal wi dundal te wéral dara. amiin ci kon kaddu gaa ngi jëm ci sëriñ ñu ànd ak teg muy yiw muy yiwan lépp yàlla na lu ko yàlla gaaw lool na wërsëg yu yaatu wërsëg yu lew wërsëg yu gaaw wërsëg yu set wërsëg yu dagan yu ànd ak njiit lay seeni doom yàlla nañ barke li ngeen jur yàlla na barke ci ndigg yeeg room yi li ci génn yàlla na barke yàlla nañ jub yàlla nañ am yàlla nañ xam yàlla nañ man waaye yàlla nañ ko fekkee yàlla nañu suñuy doom mën a aw te fekk tëlewuñ yàlla na ñëpp barki ci suñu kanam jub ci suñu kanam ñëpp ci suñu kanam xam ci suñu yàlla na ngeen bokk ci tànneef yi tànneef yi tànneef yi tànneef yi tànneef yi tànneef yi tànneef yi ba ci kanam yàlla yàlla na ci bokk yàlla na ngeen nekk ay awliyaa toogal noonu ci ñoom yàlla na ngeen jur ay awliyaa yang na ngeen jur ay saalihiin ak i saalihaat yàlla yàlla fajaaju defal ñu liñ ci soxla ci kër yu baax xam ne ciment ak fer moo koy tabax ak weer yal na yàlla def ko ku ne na ko bëggee na nga bëgg a dëkkee yal na la ko yàlla tabax waruwaay yu baax ay oto yu baax yu mag yu dëgër yu rafet yu am jàmm waaye essence bu ngeen cay def yal na leen yomb yal na gaaw dépasse yu doy ñam yu teg yu bëri da ngeen ci bëgg lépp yàlla na ko yàlla def li ngeen bëgg ci seen bopp ci wér yàlla na leen ko yàlla moof yàlla na xel yi wér yàlla na jëmm yi wér yàlla na xol yi wér yàlla na na ngeen mucc ci njabar ak borom yàlla na ngeen mucc ci xay ak boromam mboolem xeeti lor yi yàlla na ngeen ci mucc mboolem xeeti feebar yi yàlla na ngeen ci mucc xay ak boroomam yal na leen dëddu aji jalgati yal na yàlla jaar seen diggante ak ñoom aji tooñ yal na yàlla yàlla jaar seen diggante ak xeetu feebar yi ci ay cancer yal nañ ci mucc jabet sukkari xeet yëpp yal nañ ci mucc bët yu naqaree nopp yu taxak daw fa kastuloo xeeti accident yi yëpp yàlla nañ ci mucc accident ci oto ci mucc yàlla nañ ci mucc yi métti yàlla yàlla buñ métti bopp yi métti yàlla buñ leer yi leer yàlla buñ lëndëm nopp yi dul dégg yàlla nañ dégg ci zaahir ci baatin yi dégg yàlla nañ sax di dégg yàlla nañu yàlla sàmmal suñu diine bu ci dara yàq bu ci dara tâche bu ci dara ay suñu tariixa yàlla nañu ko yàlla bu ci dara yàq bu ci ayibal bu ci dara yàlla na yàlla suñu fayda bu ci dara yàq mbokk yi yàlla bu yàq mbokk yàlla buñ yàq yàlla buñ yàq yàlla yàq yàlla buñ bu kenn yàqoo ci yàlla bu dara yàqoo ci réew mi yal na yàlla def na yàlla def jàmm yal yàlla def teraanga adduna bi yal na yàlla def jàmm Palestine na fi yàlla def jàmm ñuy ñaanal suñu xalifa Mawlaay Cheikh Mahmoudou Mahi yal na fi yàgg lool ak mbooleem njabootu Mawlaana Cheikh Islam ak mbooleem kilifa diine yi tarixa buñ mënta nekk réew mu mën a nekk gox buñ mën a nekk taalibe yi muqaddam yi jëwriñ yi cheikh yi muqaddam yi président yi président secteur yi ñi ci biir daayira yi ñëpp yal na ñam jàmm ñëpp yal na ñam jàmm bu na jam jàmm na nga am jàmm bu ñu yéene safaan bi nyepu soppi sa xel soppi sa xol nga am jàmm ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp mucc yàlla nañ mucc yàlla nañ mucc yàlla nañ mucc ci lépp luy ñu wa rahmatullahi wa barakatuh العظيم اللهم صل سيدنا محمد الفاتح أغلق والقاتم سبقنا في الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم على آل اللهم صل سيدنا محمد الفاتح أغلق والقاتم سبقنا في الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم على آل قدر مقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والمختار فترى مفد الوصليه بتا فإني يمن هو بحق صفاته برغم حسود أو مناول لنا بتا بين قد أخبرته حتى أراني كنته وربي لم يخلو مكانا ولا وقتا فجاورت طه أحمد البدر ناصر وجاوره شعري وجاورني بيتا بدالي مخياء هباني وصاله ومن على سر الموس تبا أكسرا سمتا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبنا عمر والوقت والبيت لا إلا الله لا إله إلا الله وصفها غبير أجل عندي بأوصافها علم صفاء ولا ماء ولطف ولا خونا ونور ولا نارنا وروح ولا جسم تقدم كل كائنات حديثها غديم ولا سكلنا هناك ولا رسم أي أولا يا آخرا وهو ظاهر ويا باطن الهن ريه كلنا سيرو بعدت بقرب وقتتمت في زهرتنا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 Allah. yàlla المغلق والقادم لما سبق ناصر الاقملاق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر ومقدار العظيم في قلاج باب وي خليفة باي بي تبير من من برم ام نما دار المهدين بغل ماكو وي من من جكا وي لبا